di jiital si nuyoo bi Mawlana saahibal fadila Cheikh Mouhamadul Muntaqa hafisahullah wa raa di ko siyaar waaye di siyaar mboolem kilifa diine yi fu ñu mën a nekk di ñaan borom bi tabaaraka la kàttan nañ leen dafa leen tawfiq ba li ñu yéene ci ummatu sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam borom bi jàppandal ko tañ ànd ko ak ñoom di nuyu itam mboolem ñi nga xam ñu ngi topp suñuy waxtaanu safar ci émission yaru euh, ak yare ni ñu koy baaxoo di def nag depuis bi safar tàmbalee ba ñu àgg ci bisu màggal ba bis ñu dajal benn boroom xam-xam jàngat ak moom ay tomb yu am solo tey jii nag ñu dalal euh, jëmm joo xam ne moom du ko ñuy xamleeti ndax xam guñ ko xam ak itam liggéeyam ci lislaam ci jàngale alquran ci daawa layla nahar daanaka du ko ñuy du ko naan kan la waaye nag jëmm ju neen moom dana aaja ñu xamle ko ngir mbokk yi nga xam ne ñu ngi koy jàkkaarloo moom muy sëriñ Xaadim euh, Njaay al imam di jëmm joo xam ni euh, niñ ko waxee ci muqaddima bi yëngutoom bépp ci alxuraan la mi ngi ci jàngale yi ci manabir yi ci muhaadaraat yi ngir lan li nga xamante si ni moo tax yàlla yónni yonte bi alayhi salaatu salaam ngir ñu takkaayoo makaarimul axlaaq muy jël loolu di ko installé ci doomu jullit yi di ñaan mbokk yëpp ñaanoon ko ba liggéey boobu suñu borom defal ko si lu kawe njort sëriñ xaadim euh, ginnaaw boo xamee nuyoo na ak mbokki jullit yi xam naa tey dañoo tànn nag tomb bu am solo mooy sëriñ Tuubaa euh, ak noon yi mu daanaka mooy kolon yi la sa ju la sa juddoo ci xalaat ci commencement bi ba ni mu jeexee ba suñu jamono ji ñu toll ni ñëwaatee ak ni ñuy feeñee lépp incha allah ginnaaw boo xamee sëriñ xaadim nuyoo na danañ si indi ay tomb yu am solo tafadal maskura alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi al ambiyaai wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu waaye tàmbalee ci nuyoo bi sëriñ Mbàkke yow mi nga xam ne yaa ñu dalal ñu war a waxtaane tomb yu am solo ci ku tedd ku baax kooku waaye nag di jagleel xaasatan ab nuyoo e, cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo ne ci bopp yoonu murit e, di nuyu képp koo xam ne kilifa ak diine nga ci Sénégal di nuyu itam képp koo xam ne dëgër ak xam sa bopp ak bëgg sa bopp mooy say principe danga dégg ci Serigne Touba lu mu gàtt gàtt loo xam ne da nga xam ne xam sa bopp moo gën lu dul moom. Hmm. ndax sa borom sax mënoo koo xam xam nga yàlla ci man koo xam te fekk xamuloo sa bopp kon ñu ngi nuyu ñëpp euh, di ndokkeel El Hadji Serigne Seck euh, C3S moom mi nga xam ne euh, ci sababam mooy sababu ñu toog fii ñun ñëpp. ak liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy defal daawa islamiya bi bi hmm. eh, si fa am waaye di ko defal yoonu murit di ko defal Sénégal gépp hmm. eh, di ko ñaanal di ñaan mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi hmm. yàlla defal leen tawfiq defal ñu ko ñun ñëpp macha allah suñu xaarim ci nuyoo boobu loolu tam lu am solo la ndax itam ñu mën a mat nañuy soññe ñi nga xam ne leen borom bi sedd ñu ngi ci liggéeyal lislaam daanak loolu moom moo saw itam yaatuñ bind alquran bi nga xam ne suñu xaadim mii ñuy waxtaanal tey moo jiite lépp lu jëm si commission scientifique bi waaye itam di secrétaire général ci rabitat madaris quran ak yeneen yoo xam ne lépp du génn al alquran karim waaye di siyaar baax Cheikh Amadou Fadil mi nga xam ne tam lépp si ak jàppandalam la sëriñ Dame Touré waaye di siyaar suñu technicien bi si Moustapha Sarr mi nga xam ne moom la ñuy àndal liggéey bi toujours tam mu si taxaw taxawaay yu am solo suñu xaadim euh, sëriñ Touba xaadim rasul digganteem ak noon bi Euh, ginnaaw boo xamante ni borom bi tabaaraka wa taala kàttanal na ko ba lu ñu laloon ci ay pexe màbbu na ko ci dooley borom bi tabaaraka wa taala ndax mu ne hadamtu maa banaahu kullu man jahad min alfira bi qul huwa allahu ahad kon ne lépp loo xam ni tubaab bi laloon na ko ci ay pexe ci baaxu borom bi màbb naa ko ci tawhid bu dëgër suñ xaadim sëñ boobu tey boo ñu ko doon indil comme bind tey ndax li jàkkaarloo ñun ci ay dérive bari na ci noon bi noppalu guddi ay guddi ak bëccëg ci mbooleem pexe yi muy mën a jëfandikoo yëpp pour màbbu lislaam ginnaaw boo ñu jàngalee sëñ bi ni defoon ba suñu borom may ko mu gañe leen ba pare jéggal leen loolu yan bind lañ ci mën a tiire ñuy dem pour mën a jàkkaarloo ñooñu pour mën a taxawu lislaam euh, jërëjëf sëñ Mbàkke euh, Cheikh Ahmadul Xadim radiallahu anhu wa ardaahu euh, jëmm la xam ne mooy alwaarisul kaamil li sayidil bashari sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa dafa doon yonent bi ndono lu mat sëkk xam nga ñëw na ci xadis al ulamaau warasatul ambiyaai loolu kon aalim rekk day nekk euh, bokk ci ñi doon waaye aalim itam léeg-léeg deesu ci yem day am yu baree bari yoo xam ne day dajaloo ginnaaw bi nit ki nekkee aalim bu ko defee da koy tiime keneen koo xam ne xam-xam rek nga yore euh, sëriñ bi nag dafa jóg rek dal di xam ne euh, lii mu gis ci jamono ji mu doon dund ci diggante jaami yàlla yi ak seen borom yàlla waaye ci diggante jaamu yàlla yi ak seen moroomi jaam ak diggante jaamu yàlla yi ak seen bopp diggante jaamu yàlla yi seen bopp laay tàmbalee muy nit ñi niñ doon dunde fiñ tegoon yàlla ni mu wa wuutee ak fañ ko waroon teg jaam yi ci seen bopp en tant que ay jaam niñ waroon a joxantee cër xam ne ñoom ñëpp jaam lañ jaam di jaami yàlla demewut noona waaye ay buur aki daga ki ak i eh, baadooloo ki yu mel noonu moo bari woon ak ñu xam ba noppi te fi xam nga feeñut ndax dañoo ànd ak ña xamut di dund dundin woo xam ne kenn xamu ko mm-hmm. diggante jaam bi ak boroomam it fi ñu war a teg seen borom ci tawxiid ak fi ñu ko war a teg ci wéetal ko ak fi ñu war a teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wéetal ko ci roy wéetal yàlla ci jaamu yooye itam mu am jaxasoo laps boo xam ne lu desee leer ci nit ñi mhm. moo tax taj diidu sëriñ bi taj diid bi nga xam ne def na ko diine mhm. taj diidul mafahim mhm. déggin yu bare bari yoo xam ne déggoon nañ ko boo demee ci mbindam da ngay gis ne eh, boo ko dendalee ak yeneen téere ya ngay gis wala yeneen ya nga daan dégg da ngay xam ne moom yee yeesalaat na déggin yi kon loolu moo tax mu jóg ne maanaam xaadimu rasul xaadimu rasul jooju eh, buñ déggee tur wi topp mbindam mi nga xam ne bind na ko li ci li ci egsi ci man ñu man koo yër dangay gis ne xaadimu rasul bi ay étape la mm-hmm. xaadimu rasul bi nga xam ne moom ci boppam moo ko tànnal boppam mm-hmm. tudde boppam xaadimu rasul nga xam ne nangootul ñu di ko wax eh, maanaam Ahmadou bàmba eh, mm-hmm. ne bu ma kenn waxati Ahmadou Bamba loolu ginnaaw bi mu amee ay information yi mu am eh, digganteem ak boroomam digganteem ak yonent bi la wax loolu waaye ginnaaw bi nag bu mu dee ba ca kanam kanam dana feeñaat ne lan moo tax mm-hmm. mu nekk xaadimu rasul mm-hmm. kon sëriñ bi ci tàmbuleem mën nañoo wax noonu muy muy jóg nag di dem jóg nag di dem ci xam-xam bu bari bi jàng li ñëpp yi jàng nga xam ne bu dee jàng rek la jàng na mm-hmm. bu fekkente ne wër rek la mu wër a wër barab yu sell yi nit ñu baax ñi culture yi ci Sénégal fu nekk mën nañ ne dem na fa hmm. loolu jàkka yi nga xam ne nii nekk na ci Sénégal nga xam ne foo romb ñu ne fii sëñ bi dafaa julli woon hmm. lool tegtal la bu rëy ci ne sëriñ bi toogul woon hmm. loolu yëpp jàng na eh, terrain bi maydaan mi jàng na ko ba xam nit ñi ak seen déggin ak seen gisiin ak buur yi fiñ nekk ak ceddo yeeg lawax yeeg sëriñ see si ko mate ak si ko manqué yëpp fu ci nekk xam na lan moo fa nekk mu toog nag jël ay matuwaay jàpp ne dafa war a liggéeyal borom bi subhaanahu wa taala ci lii mu gis nan la koy soppee soppi googu nag du jël jaasi du jëlu yat waaye am na weneen xeetu soppin woo xam ne mën nañoo xalaat min waxyil bi a ne mën naa am sëriñ bi ginnaaw ay kilifa jiitu nañ ko fi lu mat ay nàngami téeméeri at te ñu ci nekk def nañ effort jihaad ju nekk def nañ ko mën na am loola wan ko ne ak dolli ci ndigalul borom ak njàngaleem yonent bi wan ko ne yow sa yoonu jihaad bokkut teg wa nga xam ne moom lañ xamoon kon yow maam njàmbaar gaa ngi fi daal waaye xel maa ngi fi xel maa ngi fi maam doxewul ci eh, xelum njàmbaaru kese deful taxawur deful taxawur ah. waaye dafa ànd ak xel su ko defee loolu itam njàmbaar gu àndut ak xel boo buñ nee diw daa dof hmm. mooy day jàmbaar te amul xel hmm. loolu moo tax ñu naan daa dof waaye bu ñu nee diw nit njaay la mooy xel ma dafay nekk su ko defee bu ñu nee jàmbaar la nag jàmbaar ga ak xel ma dañuy ànd su ko defee nag lu muy ma looy def rek. looy song lu ne sax da nga koy mën a réussir da nga koy mën a réussir. ra'yu qabla shajaa'ati shujaa. shajaa'ati shujaa. mutanabbi waaw bala ngaa feeñal ak njàmbaar da ngay teg xel. da ngay teg xel bu pare. loolu mooy mën nañu wax ci muqaddima bi. ne Serigne tubaa dafa mel ni euh, dañ koo jël jëlal àddina. tegal ko ko ci kanamam muy xool li ci yàqu xool ñi ci yàqu xool ñi fi yàq gis itam sàq bi ñuy tibbee pour defar mu jóg nag pour defar te loola mooy faw mu jël mabda u xidma muy liggéey liggéey boobu mooy lan ndax liggéeyu mbay la liggéey boobu ban liggéey la mooy yonent bi lay liggéeyal comme yonent bee fi indi woon diine ji ci ndigalu borom bi subhanahu wa moom mabda u xidma lu yaatoo yaatu la loo xam ne mhm. ci biir la sëriñ bi taxaw ndax ne ubaayiu al yawma rasul al mustafa mhm. fii xidmatin wa asalullah al mhm. ne fii ma taxaw maa ngi jaayanteeg yonent bi rasul ki ñu yónni al te muy ki ñu tànn waaye ci liggéey waaye nag mottali yéene ja moom sama borom subhanahu wa taala ñaan mu defal ma ko nga xam ne bi mu defee bi mu amee xalaat boobu te installé di di sanc ay dëkk defar ay nit te soxlawul tubaab bi xam nga loolu day daal di nekk loo xam ne day dugal benn sikki sàkka ba tax loolu moo daanaka li nga gën a boole ak tubaab bi loolu si la bokk gis nga bituma yi bare sax ne man dëgg la dinaa jihaad waaye nag inni ujahidu bil ulum wa bi tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahid kon moom bi mu ñëwee ba xam terrain bi feebar bi xam saafara si ginnaaw bu waajuram jàllee ba mu jël engagement nag bu wér moom nga xam ne dara doxatul diggante ak borom lu koy mën a lu koy mën a dogale ba mu sugg si liggéey bi daa mel nag si la daal di daje nag si la digganteem ak tubaab bi nag moom noon bi nag méttee méttee goo xam daanaka lu doon junj du léegi àgg na si di ko jëf jëfin woo xam bu jéggi dayoo waaw xam nga euh, ab noon faw bu ñu xool léegi noon bi bala moo nekk noon nan nga mel ba tax mu noonu la soppe bi it buy nekk soppe day am melokaan woo mel tax mu sopp la sëriñ bi mook noon bi daa mel ni li ñuy wax taqaatuul masaalix sëriñ bi dafa am lu mu bëgg ci réew mi noon bi am lu mu bëgg ci réew mi ñoom ñaar ñu dem ba seen ñaari intérêt yi daje nii bokkuñu te bokkuñu kon faaw ñu xeex bokkuñu laa sëriñ bi li bëgg mooy nit ñëpp doon ay gor mhm. moom seen bopp buñ moomee seen bopp ci la ñuy mën a jaamoo yàlla ba jox yàlla àqi buur ñoom ñu wàcc ci basanguk doonub jaam mhm. tubaab bi nag moom itam lim soxla ci réew mi mhm. mooy dafa bëgg mboolem lu fi baax mu jël ko kenn ku ci nekk luy ak ngor aku gore ak moom sa bopp mu salbu ko jël ko ci yow kon ñoom ñaar ñooñu ki bëgg ñépp gore gis seen bopp ci réew mi xam ne ñoo ko moom ñu defar ko waaye xam ne ay jaam lañuy war a jaamu yàlla kon ñoom ñaar mënuñoo séq ab taal mhm. waaye ci kaw loolu sëñ bi demul attaqué leen ne leen bàyyi leen dëkk yi ngeen di lakk mhm. wala bàyyi leen gaa yi ngeen di eh, xeex waaye moom dafa jël mën manhaj bi ko yonent bi jox sallallahu alayhi wa mooy rabbi asxaabaka lil himmati wala turabbihim bi dërs mooy ndigal lañ ko jëkk a jox mooy xam-xam baax na waaye na nga yar njaboot gi say taalibe ñi nga àndal na nga leen yar ci yitte mooy lépp lu suufe rek buñ ko xool nañuy xool ca kaw ab jullit daa war a téen hmm. warut xool suuf yitte ju kawe ñu kawe lu suufe rek hmm. ab jullit waratu koo soxla rawatina ab taalibe moo tax yonent bi inna laa yuhibbu ma'aalil umuur ma'aalil umuur wa yakrahu safaasifahaa yàlla dafa bëgg mbir yu kawee waaye bëggul yu suufee bëggul yu suufee yi kon sëriñ bi moom itam fi mu bëgg yóbbu nit ñi ak fi tubaab bi gisee du ñu bokk mu am nag loo xam ne boroom xam-xam yi ni ñu koy waxee suñu mag ñi jàll te doon te doon jàngale ci sëriñ bi hmm. dañuy wax ne euh, dajeem ak yahu euh, nasaraan bi ak yóbbu gi mu ko yóbbu am na sababu zahir ak sababu baatin euh, sababu gaybatiya araada an anaala minhu jaaha kon loolu doonte euh, way yooyu am na euh, ay euh, ñi nga xam ne dañuy am ay gis-gis ci yenn yi am mm. nañ ci ay xalaat mm. waaye teewut maanaam yi mutaabiq la lil waaqi mm. kon su ko defee daanaka du amati solo yeneen ñu sew sewaane kon sëriñ bi li taxoon mu jóg kon mooy sauver nit ñi léegi nag bu fekkente ne yëngutu bi dafa bari rawatina bi mu nekkee Touba. nga xam ne fu ne jaar na fa waaye nag bi mu nekkee Touba nga xam ne yëngatu bi daaru Minam yaag. daaru Xuddoos yaag daaru Salaam yaag fu nekk ak daaru nekk fa. muy mbooloo moo xam ne ñi ngi kër kër yi suba ak ngoon ci jaamu yàlla ak yar ak a jàng. te maanaam tubaab bi xamul ñii lu ñu fi nekke kon bu amee yàqkat boo xam ne wala ay yàqkat yoo xam ne dañ koo junj ne ko. Euh, kii day ci sa moom Moodu Mbàkke mi ci sa kaw la jëm mhm. euh, ak na ko sëñ Fàllu Mbàkke radiyallahu anhu nettalee ca mhm. euh, bande ba ka nga xam ne moo defoon jëf joojee ba ba def cachet ba wane wane ne maag moom ñoo ngi lay songu si xam nga mhm. loolu sababu zahir la bu ñaaw a ñaaw ci ay complot complot moom yëfu yëfu yëfu nit la waaw nit ku nitoo lool ci lay dox su ko defee loolu bi nga xamee ne am na teewul nag wax na ne moom li tax ma dem mooy nangam ak nangam ak nangam waaye teewut nga xool ba tey sëriñ bi ci grandeur am maanaam ci kaweem lépp daf ko delloo ci seytaane ci pexe yi mm-hmm. waaye sante ko yàlla ci ne lim am dem gee ko ko may kon moo tax mu muñal ñëpp baal mm-hmm. ñëpp yow yow déggloo nga ma xarurul wara xara nasara bi kay di nga xam ne ko demee tubaab bi ñoom ay victime lañ seytaane leen nax seytaane leen nax mm-hmm. waaw seytaane moo leen nax ñu jàpp ne kii eh, nañ xeex ak moom nekkat moo leen utiliser amuñu ndam seytaane itam amut ndam kon ci kaw loolu bu ma jëlee rek euh, sëriñ bi euh, lu tax mu tudd xaadimu rasul mm-hmm. xam nga xaadimu rasul ar rasul mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. bi sallallahu alayhi dafa am ay tur mm-hmm. yàlla tudd na ko rasul ñeenti yoon yaakaar naa ci alquran waaye tudd na ko itam annabiyu ay yoon waaye turam bi itam ci woote daa mel ni yàlla wax ko benn yoon ci alquran ci woo ko ne ko yaa muhammad bu ko woowee rek ci risaala bi muy fonction bi sëriñ tubaa bu ko neexoon ne tudd xaadimu muhammad hmm. ndax bëgg gum bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko neexoon tudd itam xaadimu muntaqaa ak turi yonent bi yu bari bu ko neexoon hmm. lu tax jëlu ci benn idaafa ko ci boppam waaye jël ar rasul hmm. rasul bi fonction la mission bi waaw mission boobu nga xam ne moom la yonent bi indi woon mission boobu la donn moom lay liggéeyal moo tax mu nekk xaadimu risala al muhammadiya hmm. ndox bu fekkoon xaadimu muhammad la daanaka mën nga ne moom sëriñ bi sax suñ ko gisatul ci zahir maanaam léegi xanaa dañuy sosaat kon nekk xaadim Muhammad waaye nga xam ne doon du risaala googu moo ko may fokk kon mu jàmmaarloog ak ay noon mu jàmmaarloog ay noon waaw ndax jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon yonent rek ci Badar Uhud yaag mu ngoog noonu ñoom jàkkaarloo waaw man nga ne enveloppe la mm, waaw enveloppe la boo xam ne lim ëmb muy risaala boobu mm-hmm. loolu moom la sëriñ bi nekk xaadimam mm-hmm. te te te xaadim boobu bu ko nekkee faaw mu nekk xaadimu Muhammad mm-hmm. waaye kon sumuliya bi mi ngi ëppee ci bu ne xaadimu rasul loolu nga xam ne moom la tuddee boppam waaye nag ba mu demee ba yàlla dogal ñu jële ko jolof mu jaar jeewal jaar eh, jaar jaar kokki wuti Louga ba mu fa jógee ba dellusiwaat eh, eh, ba delsiwaat ba dugg ci gaal gi boobee mu wax ne alamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu dil madina kon léegi lëm bëggoon mooy nekk xaadimu rasul moom bi mu tegee tànkam ci gaal gi borom léegi moo ko xamal ne yoway xaadimu rasul mm. kon xam nga ne état bu bu leen ma woote lu dul xaadim bokkut ak état bu yàlla xamal la ne yoway xaadimu rasul léegi moom ci macha allah sëñ xaadim ci noonu nga wax nga xam ne léegi eh, wax nga lu am solo wane ni léegi bëgg-bëggam ak bëgg-bëgg tubaab yi ñoo wuutee mm-hmm. te kii bëggul lu mbirum njëkk moom itam mu bëgg lislaam njëkk foog kon ñoom ñaar daje. bi ñu itam ku ne xam na ni metti na daanaka juróom-ñaari at ak lu lu lu teg mu seq ak ñoom yi mu seq yëpp fa mu gën a méttee lu ne nag yàkk na leen ko ci ay xasee ñu di ko jàng koo xam dañoo jàpp ne prisonnier nga ngay taarif lu mel ne ay laysal biru lu ne ngay jàpp wax yàq leen ko ci asiru noonu mm-hmm. ilhamu salaam lu si nekk di ay mbind yoo xam ñoom la jàkkaarloo nekk ci seeni loxo di waxanteeg ñoom wax joo xam ne kenn du ko mën a dégg gis nga wala udaayinu sax la wala sawi tanassur sa aman yamun bi tabasul du ma raggalante ak ginnaaw akub nasaraan kooku kon foofu mu jaaroon ba dàq noon bi sëñ xaarim ba samp lislaam daa mel noon bi daa làqatu woon sëñ bi doo ko dàq mu jaar si bunt bi waaye daa mel daa bëgg jaar si fenêtre bi dugg loolu nag ñi nga xam ne moom tey ñoo yore liggéey boobu nan la war a mën a jàkkaarloo ak noon boobu ba li fi sëñ bàyyi woon ñu gën koo yaatal tam bañ a manqué xam naa ci ay ay baat yu néew yu ñu koy mën a tënk ndax daal mi wàcc mbokk mi ngi ñaan yëf yi certe na ndax temps bi dafa gaaw waaw xam nga sëñ Mbàkke hmm. euh, sëriñ bi euh, wax na ba tàyyi ci njaareem ak feneen hmm. ne góor mag day hmm. war na ma ginnaaw di yuuxu di daw di dem seytaane muy seytaane góor mag la ko daan tudde góor mag waaw waaye góor mag it saa buy daw dana sànni sañ bi ay baat hmm. baati maa ngi dem waaye maa ngi dellusi baati mënaluma la dara waaye sa gaay bu ma ñëwee hmm. loolu ndegam iblis yàlla la waxoon la aqudanna lahum siraatakal mustaqim hmm. ba ko yàlla waxee waxam ji mu wëlbati ko ne def nga ma noonu waaye sa gaay danaa def nangam kon iblis ku ne xam na ne du fi jóg mbër la daal mbër la moo xam ne moom saa boo ko daanee parce que la waaw waaw la uxriyannahu waaw moom xam nga léegi su ko defee kon góor mag moomu nag bi ko sëñ bi dàqee mu jaar ci bunt bi daw dafa wër jaariwaat ci polonteer bi nag léegi nag booy xool ca bunt ba nag te ma nga jaar ci polonteer bi xam nga ne kooku bu duggee dalay bett ndax doo doo jàkkaarloog moom mm-hmm. daa mel ni nag jege na nag mm-hmm. daa ni nag jege na mm-hmm. kon benn solution rek moo am te iblis moomu man nga ne mooy tubaab bi wala tubaab bi daa jël mbubbum iblis sol ko ba léegi tubaab baa ngi fi ba léegi tey la Sénégal gën a soxla am Cheikh Ahmad Bamba waaye lim ras mu woon nag jaar ci ba am résultat bi am looloo ngi fi te du fi jóg ñi gëm loolu itam ñi ngi fi te duñ fi jóg kon lu des mooy jàpp ci loolu ak ñaari loxo jàpp bu dëgër jàpp bu dëgër te nag bañ a xool leneen loo xam ne ay wax la yu dul mbind mi. waaw wér na waaw hmm, surtout loolu. waaw ndax dafa bind lu leer naññ yar ci ay nit dox ci ba am résultat. kon buñ jàppee ci loolu muy mën hëjiye boobu nga xam ne moom la fi teg su boobaa insha allahu danañu dem sëñ bi kon ba mu waxee ne ijaal rujuuci ila qawmi saadatana hmm. wal takfina yawma jamail xalqi niiraana mhm. kon ak dellu seem mhm. xam nga tëb nañ lu bëree bëri nekkuñu woon sax ci tukki bi ci principe yi rek lañ nekkoon mhm, ak dellu seem ñaan na yàlla ne sama dellu ca ca nit ña ca sama gaay mooy képp kuy ab sénégalais kon war ngaa gëm ne sëriñ tuubaa maanaam sëm sëriñ Touba la bul ko ja bàyyee genn kuréel bu ndaw boo xam ne boo ko seetee boo xaajoon Sénégal ñetti xaaj benn bi ñooy ñoom bu ko ëppee it du ko dolli lu bari nga ne nag ñooñu ñoo moom sëñ Tuubaa sama yoon newu ci fa bashir sabil islaami bi aajilan wa kun muniran bi al islaam anta munir anta munir su ko defee kon loolu ñëpp a ko bokk moom mbégte la pour ñëpp pour lislaam ñëpp ilaa xaw mii la wax hmm. su ko defee benn bi ci des mooy euh, mu am bayit wu ama am solo hmm. boo xam ne xëy na mën nañ koo jeexale ngay jeexale waaw insha allah euh, sëriñ bi ci waxtaan bu muy waxee léeg-léeg ngir sant boroomam léeg day wax yoo xam ne bu ko waxee mooy day sant boroomam ndax lu ko boroom defal gañe gum leen gañe dafa ñëw déclaré ne gañe naa wali raadahum turan wali raadahum turan wali karramal janba yàlla rawdu def dafa tàggat noon yi dem nañ ba bu soxlaa dox ñu ko ñu koy jël satal di ko ko wutal mm-hmm. jëm yóbbu giñ ko yóbbu delloosi ko di dox ci service am ñu jàpp ne ñoom dañ koy sonal te moom ci service am la ñuy dox loolu rawdu la wali min ilahi rawdu fi kulli aylami maam def leen a yàlla da koo tàggatal wali raadahum jan wali al jan bu boo ko doon saraatay dana dana dana yaatu dana rëy waaye sëñ bi nee na takrim la ma yàlla defaral maanaam sama jan sama jana baat yépp lu aju ci man mu daal di nag iraafani alxannaanu min kaydi man qala wallaay ndeysaan yàlla moo ma iraafa moo ma ci pexem te moom li si yéey moom daa mel ni amul dara lu muy dellowaat si boppam déedéet iraafani ngi lépp si yàlla la koy delluwaat boo doon jël boo doon tànn sëñ maanaam turi yàlla yi muy jëfandikoo iraafani alxannaanu wallaay ndeysaan xam nga néewul axaasani xam ah, xannaan ma waxoon na manoon na boo demee axaasani yàll man naanu it wasnu bi day ñëw am ah, buy woo buy woo suñu borom daal da koy woo si tur woo xam ne waaw tur wu la mu la la la muy soxla mhm. axaasani yàll xannaanu min kaydi man xala gaa yi nga xam ne dañ maa bañ xam nga xalaa ak xanna mhm. ah. ñoom ñaar ñaari dañoo safaanoo bee noon bee ko yor bee borom bee ko yor mhm. wasaara moo tax nag mu mujj kanaaril xilli lii hmm. mu mel ni safaraw ibrahima yaanaaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima mu ju dugal ko ca safaraw mu sedd guyi hmm. baxru mayomba noonu la mel ci man hmm. wali raadahum turran wali karrama aljanba agathani alxannaan min kaydi man qala wasaara kanaaril xilli lii baxru maayomba géej gi daa mel ni safaraw ibrahima wañ ko sànni woon mu sedd guyi kon julli ci géej gi rawdu bi bi ko yàlla defal tàggatal ko moo ko waral war géej gi dem dellu siwaat te labut doxi soxlaam tàggat gu ko yàlla tàggatal moo ko ko waral ak it dimbale gum ko dimbale xettali ko ba nga xam ne mboolem pexe muñ mas a nos kero ñu demee ba ñu dellusee amul pexe mu mas a ci kaw Sëriñ Tuuba macha allah sëñ Xaadim macha allah sëñ Xaadim ci tomb bu am solo boobu eh, bayitoo moom ni nga ko ni nga ko ni nga ko firee ak ni nga ko tasee Euh, moom lu am solo la ndax loolu dana tax nga mën a gën a dégg liggéey bi ndax lool bi mu koy waxee tam fekk na fekk na mi ngi ñaan pour dellu pour dellu si si xasida euh, raditu anil mawla euh, kon nga gis ni moom sëñ bi ni ñu ko xamee ci tàmbali bi ba ci yam bi fi mu jeexee yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul leneen lu koy jiital wala lu muy bàyyi xel léegi nag li am solo lool li ñu si war a jàngee suñu xaadim te xam naa foofu la ñuy yëkkate jataay bi mooy jamono ji ñu toll nii noonu lislaam yi ni ñu baree yàq gi ni ñu ak sëñ bi ni mu indee solution ak itam njàmbaar gi mu wane. léegi nga wax lu am solo nag ngir solution lépp mooy delluwaat ci ay mbindam ak ay joxañam te bañ di dellu ci ay kàddu yoo xam ne amul amul cëslaay macha allah kon lool lu am solo la loolu la ñu andiloon tey mbokk yi ci suñu émission yaru ak yare bi ñuy am bi ñuy amal ci waxtaanu safar xam naa temps bi sax waroon naa gën a mën a ëpp loolu ba sëñ bi waajoon na lu ëpp loolu waaye ku ne xam na ni eh, comme dafay tëngu si ay minutes yu gàtt moom loolu moo si moo moo si am solo li si am solo rek mën naa mënees naa xam daal sëñ bi jàkkaarloo na ak tubaab bi làmbaay yowul dara lu dul tawxiid ak engagement bu wér boo xam delluwul ginnaaw te loolu ñaare heure bu ko nit ki amee lu mu dugg yàlla mën na ko see defal tawfiix ndax dañoo wax ne iza kunta za ra'yin fa kun za azimatin fa inna fasada ra'yi an tataraddada nit ki moom boo essayé am xalaat léegi na am dogu rek ak détermination àgg kon képp ku am xalaat bu amuk dogu borom bi tabaaraka taala mën na la jàppandil wa ilayhi yurja'u l-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم